Bienvenue sur Salam Vision. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم حمد وشكر لمن كل بعسارا لهور دون سقط عند سرسارا لهور suppi Sëriñ Amsa Mbàkke dem sa sama njëkk dem na dem na ca kër borom ndar bilaay mooy ko ma cerno faati yaa di suma nooro yaa di suma nooro ne bi ma ma reer ma daabal daaru sama naa yaa di suma nooro Sama loxo ca kaw yaa leen dimbali yaa leen dimbali bëgg de waay waay agondi bi mo jaari tali bu mag sa xel dem ci maam Cerno sëñ am sax yaa ko waral waral nga jaayante rek dugg si ci baas bi ngir li nu bëgg a wax du bari waaye ay barke yoo xam ne sii rek dañuy ñaan maam Thierno li nga xam ne moom la ñuy ñaan mu fajal ñu ajo yi. mbokki taalibe yi ñu ngi ziyaare ñépp di leen gërëm di ñaan ki nga xam ne moo waraloon guddi gi muy maam Thierno Birahim kenn ku ci ne si nun tey war nañoo ko santaat bu baax a baax ci lii nga xam ne def na ko te mu nammee ko nii mu ko nammee te lii dadul hasard damay wax ak sànq ci saal bi sama benn xarit El Hadj Malick mu am lu mu wax lu am solo mu ne lii amee tey ci Sénégal kenn ku ci ne nekk fa nga nekk nga màggalee fa maam Thierno dafa mel ne Sénégal da koo soxla woon. Mm-hmm. te gëm naa ne borom daalu rek mooy solution ci Sénégal lii nii màggalam gi demee nii rek la war a mën a demee jàpp naa ne buñ fi jugee lépp luy faju ci lay fajoo te loolu moom Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moo ko wax du samay du samay wax ndax moo ne ànd ak man day doy na waaye ànd ak Thierno ëpp na ba mu ko waxee mag ñam ko wax mag ñooñu jaaxle lool mu ne leen xaaral ma leeral leen di tax ma wax loolu te loolu jàpp naa ne Serigne Touba moom du koy waxantu te du neexale kenn lenn kon bu xoolee ku toll ne maam Thierno Ibrahima Fati ne ko ànd ak man day na waaye ànd ak Thierno ëpp na kon kan mooy Thierno kon mm-hmm. loolu lu mat a lu mat a lu mat a bàyyi xel la te mu ne ko ñooña mu ne leen ku ànd ak Thierno ku ànd ak man yàlla dalay fay yonent bi fay la sëñ man ma fay la man Serigne Touba mooy ñetti fay ku ànd ak Thierno yàlla da lay fay yonent bi fay la Serigne Touba fay la Thierno fay la muy ñeenti fay kon boroom daaru yaakaar naa ne bisam bii gëm naa ne képp ku ci fas ak loo ci mën a fas ak ay ju mu a doon ndax dañoo indi tey daaru ndakaar <laughs> dañoo indi daaru ndakaaru ndax damaa dégg léegi suñu Modou Kara ci mbaaxam moom ci xam lu luy Ceerno mu jigee daaru dem Thiès ñëw Ndakaaru ci benn bis loolu loolu njabootu Ceerno gépp war a xett li mbindee bi yàlla yi ndax li tax ma wax ko mooy njabootu Ceerno rek ñoo mën a xett li njabootu njaboot gépp du caagi ne waxu waxu jaahil la waaye Serigne Touba dafa jox lépp maam Ceerno te laaju ko ci dara te laaju ko ci dara baatinu Serigne Touba lépp da koo naxañ ci Ceerno kon loolu jàpp naa ne su ma ko waxee foofu laa ko waxee ndax loolu waxi sëriñ bi la du su may wax man kon su fekkante ne dañuy def bis bis bu mel nii tey ëppoon na ñu ñu ñu ñu tas cant gi te bañ koo teewlu tuuti ñu wax ci moom ñetti baat ñetti baat yi nag du du lu dul li mu waxoon ne moom maam Thierno Ibra Faati ne li fi war a xew fii ba àdduna di tukki suñ Sëñ Tuubaa xamal na ma ko maam Thierno ma wax loolu dane li fi war a xew ba àdduna tukki sëñ Tuubaa xamal na ma ko te sëñ Tuubaa moo ne malaka ni dunya wa uxra samadu kon maam Thierno xam ne lépp keroog bi ñu dindee fato bii benn benn waay dafa am na loo xam ne sax ñu bari yëgunu ko guddi àjjuma rek da daan ñëw fii ci fato borom daaru bi di fi teewlu di ñaan mu ñëw di jooy jooy yu metti di wax kan moo toj fato borom daaru bi nekkoon fii ndax da daan barkeelu sa guddi àjjuma photo borom daaru bi nekk pikin nga xam ne dafa jublu ci xibla yëpp jàpp naa ne pikin yépp bu ñu xamoon tey ku ci am aajo ku ci am aajo jërul ngay dem daaru jërul ngay dem daaru moxti gin naa ko ci borom daaru boo taxawee fii wax ko la kay wax mu fekk si la billaahi wallaahi watallaahi ak aajo bi mu mën a doon soo taxawee jàkkaarloog moom boo ko fasee fajar cooy la nga ko fa la ko fas mu fajal la ko ndax Serigne Touba moo ko wax ba tey ndax moo ne Thierno mooy sama loxoom day joor te Serigne Touba du joxe càmmoñ ba noppi jox ko aw tur ne ko jëlal tur wi nga tuddee sa dëkk ba nga jëm muy Daaru Almoxti Daaru Moxti nag mooy këru aju joxe ji kon kiy joxe kenn kese nag mooy bunt bi mooy caabi ji mooy borom Daaru Moxti kon jàpp naa ne ku bëgg nga neel ak koo mën a doon soo ko jaaree ci moom mu gaaw lool loolu nag waxin la déggin la laaj. ndax lépp léppi sëñ Tuubaa ba tey dafa nekk ci maam Cerno Birahim kon yéen ñi nga xam ne yéen a jokk ci borom daaru Mooti seen xel war naa gën a dal lool ci borom daaru war ngeen a gën a góorgóorluwaat bu baax te gëstu ko moom mooy kan ndax dafa am daaru mu si benn slogan bu ñu génn naan xam na jot na waaye maam Cerno Ibra Faati waxtaane ko day ëpp ci noppub taalu bi mm-hmm. ndax ku ko waxtaane rek dangay waxtaane vie privée sëñ Tuubaa ku ko waxtaanee rek dangay waxtaane vie privée sañ tubaa moo tax moom dane woon taalibi bu ne la sëñ tubaa war a jaayanteeg yow ëllëg yow mal sëriñ bi di def na ko ba pare ñu ne ko borom daaru lan moo des mu ne yàlla na yàlla nañu yàlla musal ci ëllëg taalibi bu ne moytu àjjanay gàcc àjjanay gàcc mooy ñun ndax sëñ tubaa moo wax maam Thierno Birahim ne ko anta wa ahluka fil janna yow yaag sa ñooñu yéen a nga àjjana waaye nag nee na àjjanay gàcc mooy nga war a ràmmu ab taalib Ceerno dafa war a ràmmu ñu di la ràmmu moom la teg ne ku natt ci àndaar ji ëllëg nga mat sëkk ci àndaar ja mooy nga mat sëkk taalibe borom daarul moxti kon loolu laa leen di bàyyi lu waat xel ngeen bàyyi xel ne di ngeen a war a gën a lu gën a xam bu baax fi ngeen di teg seen tànk loolu lu mat a lu mat a lu mat a xam la bu ko defee beneen message bi may jàll rek mooy bi nga xam ne dama yaakaaroon ne su fekkante ne fii laa koy laa koy laa koy laajee ci yéen muy sunu bis bi nga xam ne moom lañ koy defal ñu nekk ci bisam ci jeexitalam tey nag màggal gi dajeeg bis boo xam ne si bis bu yéeme la ci ñi nga xam ne xam nañ borom daaru muy bisub altine te bis bu altine ju jot borom daaru di ko def gàmm muy mawlu kon ma xam ne fajar gi tey lu ci waay ñaan soo xamee baatinu borom daaru dina nangu mo lënd bii mooy mawlutam da ko saxoo altine bu ne boo demee Daara Moussi fekk mu utal ko fa mu nekk ñu defa mawlut ñi xam mu Moussi xam nañ li ma wax bu baax moom du jàgg ne gàmmu ba gàmm lay gàmm sekk altine soo demee Daara Moussi yaa ngi fekk ñuy mawlut kon su fekkente ne nag ñun dañu am lu ñu siq bokk ko muy bisam su dee dañ dafa dañ koo bëgg a def te def-def bi xëy na muy aju ci mbokki taalibe yi ñuy sàkku di ñaan ci yéen ci seen kàddu suñu manee am ne le 18 le 19 juin bi ñu ko bëgg jàpp ñu ngi diglu kàddu yëpp ñun ñaan su fekkante ne war naa man a am ñëpp ne Mbàkke na am su mënut am ñëpp ne Mbàkke bu ma su dee am nañ ne léegi le 18 le 19 nañ ko jàpp màggal ko ko loolu laay diglu ci mbokki taalibe yëpp. Mbàkke naam. ma ne na ñëpp ne day am. aneen boole kooku mu jëf dëggu. sëñ bi daa am fu mu waxee. am fu mu waxee. sëñ bi dafa am fu mu waxee. Mm-hmm. du nuy gone nag dégg nañu li mu wax. waaye Mbàkke yow boo bëggee rek day am. li ñu ci warit ñu jóg na ci rek. wax day leer. dama ne dama ne Sam. bëgg naa ko te bëgg naa ko te su suba laay waaxu jëm ci. te nañ ko bëggee dana amee noonu insha allahu rabbi kon ñu jàpp ne le 18 le 19 juin mooy bisam bi ñuy def fii kon na ko ñëpp xamandoo ñëpp jàppandoo ko kuy dem yóbbaale ko xam ne bis kat foofu lañ ko yóbbu ñu ngi sant mbokki taalibe yëpp nag di gërëm ñëpp di tàmbalee ci ngërëm li waa tali bu mag di ci teg waa CFA di ci teg waa Yëmbal di ci teg waa Malika di ci teg waa mbuur képp koo xam ne si ñëw na ci biir tey liggéey bi ndax mu bari tey bëggoon nañoo fekkee si liggéey bi waaye bis bi mu dajal rek moo tax waaye daayira yëpp a mobilisé wu tey ñëw jël seenu ñaq jël seen doole def ci ba bis bi mel nii mu mën a nii mu mel kon loolu laaj na sant ak ngërëm ak ñaan kon taaliba yi yàlla na leen sëñ Touba ak boroom daaru mi nga xam ne moom ngeen doon defal tey mu ubbil leen ay buntu xéewal ba li ngeen yéene bëgg ko ci moom bëgg ko ci si Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul yàlla na leen defal dooley poos boo ko fi jógee yokku ba yëg ko ndax li may ñaan ci xol laa koy tibbee kon képp koo xam ne si gëm nga ko te am yaqin bi rek boo fi jógee yàlla na nga yokk ci darajey borom daaru moom di santaat bu baax rek mbokki Pikine yëpp di sant El Hadj Malick mii nga xam ne sama xarit la sama lépp la di koo xam ne si moom jàpp naa ne xaw ma sax lu may werante ci moom. ma sol moo ma ko jox xaaral ma jox ko. El Hadj Malick. nii mu mel. wallaahi nii mu mel nan la xol bi na yëpp taalibe xam ne am na taxawaay bu am solo bu muy taxaw si noonu te amul benn moom daal am na am jur sax ma ci sooy ba ba noppi saam yi doon wax léegi dafa am fu mu doon waxee te ñu bari xam naa ne duñ ko xam. dañoo dañoo yàgg du tay démb la woon li muy wax lu caagi ne démb la koy wax loolu mat na fukki at ak juróom benn boobu tàmbaleeguma sax di di def yi daayira xaaj bi toog ndax juddu na ñu bari sax boobu yaa ngi def ay rasta yaakaar naa ni toog ci buntu sëriñ Seexu mi sëñ Fallou man dama daan jógee ci école bi di la romb nga def ay ay ay resta toog di tàngal café di jox sëñ bi man ci loolu laa la xamoon mhm. ma ne ma ñëw fii taxawal fi ab liggéey di ci liggéeyal sëñ Touba ak maam Thierno Birahim waaye nag li tax njabootu sëñ fàllu mu am ci wàllu wér ba kenn ku doomi sëñ fàllu ju xam laa wax de ju xam li ma booleeg sëñ fàllu danga ma téye fii fii ñuy baas baas bii nii suñu cant gi suñu waajur dafay mos a ñëw suñ suñu subayewu ay jàng ñu téye ko ne ko doo fi doo fi doo dugg ci tànt bi kon ñun li ñuy def fii du hasard te loolu jàpp naa ne mag ñi xamoon loola mës na bi ñëw ay ay cant ay ay màggal yu yu yàgg yu mag ñi di nett bi sëñ bi ñu war a ñëw fii kon ñun bu ñu demee ba tey di ko fi tàntal di ko fay bor ba kon biddiw ba fay na mbaal ba mbàkk bés boobu bàyyi Ablaye ñaa ngi ko doon jàng <laughs> mi ngoo kon sëñ Saam li ngay wax léegi du ma lay du ma lay dolli ne la man sëñ Fallou dama ci am cir mu doon cir bu cër bu cër bu wér koo xam ne si sa waajur jigéen suñ Fallou moo ko jël jox ko Cheikh Soubeyru ne ko lu ca juddoo lu ne dina am barki kon man jàpp naa ne lu ma am ba noppi teg ca aaya du caagi ne maanaam hasard moo ma moom ne ko laa xawfun alim wala am yox su noonu sëñ Soubeyru bu demee bu mu ragal dara bu ci ragal dara benn bu gën fukk dana ko ci am kon man jàpp naa ne su ma tuddoon sax barke boobu suñ fàllu wax ci suñu waajur ba jàpp naa ne loolu war naa mën a am moo tax lii ra tax ba ndang ba lu ma laal suñ fàllu teg ci loxo waxantuma ak borom daaru suñ subéeru bi ma bokk kon man jàpp naa ni suñ fàllu moom sama suñ fàllu la sama waajur sama waajur ki ko jur xam nga moo moo moo dërëte mag dërëte suñ fàllu nee ko benn la kon man moom amoo sax lu may waxate ci loolu kon ñàkk xam rek mooy waral lu lu baree bëri su may su may wax du ma ci mën a dugg sax ci yenn yi kon yal na yàlla suñu borom faj aajo yëpp ku fi nekk na ñaan ne euh, na ñëpp na ñëpp tàllal rek ma yéene ji ma am daal ma ma ma dóor ko ñëpp aay na ñëpp faj xanaa ah, tuuti sëñ Fallou dama ko fàtte gërëm ñaanal ko ndax yow ndax yow dama la dama la doon dama la doon ah, jot naa xam naa ki nga doon alhamdulilah te lii am am na loo xam ne sax jërëjëf wax maa ngi ñaan rek sëñ Fallou defal la jàmm waaw li ma booleeg yow da maa bëgg rek te yàlla tax waaw am fa ma teg wér boo xam ne si du waxu rajo yi sax man jàpp naa ne ku bëgg sama jëmm barki Seexul Xadim ak koo mën a doon du doon ak wàññi ko ci yow ak xëy na kii ma ku ma jegee rek xëy na moo may moo may moo may moo may waaye ku xam dëgg dëgg dëgg da ma fonk ngir jëmmi lii ma wax nii sànq waaw barki Seexul Xadim du dara waaye loolu yàlla moo ko def ci man waaw kon nag maa ngi ñaan ci daraja Sëñ Fall mu defal la jàmm rek na ñëpp tàllal loxo yi ñu fas si borom daaru moo te defal ñu li nga xam ne loolu la ñu yéene sunu xol te mu war a génn ci taalibe yëpp ñi war a doon li ñu war a doon ñu war a doon li ñu war a doon insha allah rabbi awlaaka la fi nekk loolu tamit. وانزل الله تعالى alihi wa sahbihi wa sallama tasliman bismillahi rahmani rahim hamdi wa sukri liman kulli biisara luhuuri dan duna suqtil inda sarsara Bienvenue sur Salam Vision.